parce que dëkkandoo kan li si gën a nii mooy ñu bañ a jéppinte mais macha allah dëkkandoo bi rafet na trois fakal la boo xoolee tey Bargny lépp tey loo xamante ne mu ngi fii daw tey si loxo yi central bi egg na fa seen dëkkandoo si ñi nekk ci Bargny am na loo xam ne mat na trois ans ndox mi dafa dawoon dugg ci biir mais bi mu dawee dugg ci biir man koroog man mii la ñu oo képp koo xamante ne ndox mi dafa laal koroog sa produit bi nga teg foofu da man mii maa doon xool faa dama ko calculer ba xam nangam la ñu jël som boobu fay la ka ñu yóbbu la mairie fay la sa boobu ba loolu gëj na amee léegi mat trois ans si ren waa dëgg yàlla te ñu leen fayee seen produit ba dañu leen bàyyi waa tax produit boobu ñu yigéen ñu jëlaat seen produit loolu central bi mu ngi si doo ajim parce que central bi dafa nekk mais bëggul a lor kenn dañu ñëw fekk nu fi jàppale ñu suñu ñu suñu wàllu liggéey koom ñu fa ñu dara suñu liggéey mais nag rimoor bi bëri na parce ñun commencé naa waa central bi ne dañ fii génnee ñii yóbbu ñu ay yéen yóbbu ñu nangam déedéet central bi waxul loolu ki na laa bu amee sax koo xamante ne am na place boo xamante ne mën nañ leen ko jaay ñu jëndal ñu ko ñu ko ngeen kooku du la jël si palace te nee nañ dañ bëgg a def site bi ba mu nekk site bu moderne na moom lañ bëgg te lépp génn na mais boo gisee fii lii tax mën ñu ko def social dañu moom fii ba ñu demee social bi ñu demee ba war a defar fii andi seen kii ñoom ñoo leen arrêté seen liggéey loolu moo tax liggéey bi taxaw. central bi lépp lu ñu sumb rek central baa ngi si dugal seen loxo suñu jumaay bi central bi ñoo ñu si jàppale ba mu li si des ba bi nag mën na ko fee jëlee parce que nun dañu lëkkaloo ñoom nu noo ngi bi tey noo ngi si àllik tabaski ñoo ngi central bi dañuy financé xaalis korité dañuy jox ay nag diñu jox xaalis tam xarit dañuy jox nag tam xarit diñu jox ay xaalis kon nag ñoom wàccoo nañu noonu nu ngi ñaan yal na centrale bi gën a avancé ndax li ñu nuy defal mu yokku wàllu wér-gu-yaram bi mm. wàllu wér-gu-yaram fi mu ne nii ñoom seetal nañu ne ay carte de santé seetal nañu benn carte de santé bi jox nañu ne carte carte mutuelle yi pour boo ko xamee ne am na loo yëg sa yaram nga dem ñu seet la soo ko sim mu ngi fi ma mais mosoo gisanu la mu des si barñi te nit ñi waxuñu ko woon pourtant kenn mosul jàmbat soo ko sim léegi centrale bi ñëw ñu di ko jàmbat ku si feebar feebar yenn yi dafa fekk nga feebar nit dëkk nag foo ko ñàkk du ñàkk feebar amul dëkk bu ñàkk maladie mais doom bu bokkoo central bi moo ma tax feebar te fekk na feebar bi dafa commencé depuis lors si yow. école yi xale bu dëkk mi nam dem université sa paas sa pay sa central bi lay jóge ku fa feebar man mi sama doom dafa feebaroon entrée principale war a fay un million cinq cent mille central bi ñoo si jàppale te en in ñenn ñi ñëpp ñi si ñi mu def loolu bari na te ñoom dañu ne saa sax dañu koy dindi def ko gaz fi mu ne nii promettre nañu ne loolu te amaana sax du tu yàgg incha gi loogi nag ñun laa nu bëgg daal mu nekk gaz central bi nekk gaz nu gën a mën a dëkk moom mu gën a mën a defal li ñu bëgg nu ñaana ka mu yokk jëm ko sa kanam